mi nga xam ne moo yor kàddu sëriñ Abo jiite liggéey yu màggalu Kazu Rajab teewal fi sëriñ Abo teewal fi Cheikh Mahamadul Bachir ak mbooleem njabootu Cheikh Mahamadul Fadil te Cheikh Mahamadul Murtada ak i rakkam yépp jox ñu ndigal wax ne nañ jottali ay kàddu yu gàtt yoo xam ne dafay jëm rek ci fàttaliwaat dayo bi nga xam ne màggal bi am na muy màggal goo xam ne day màggalug lislaam di màggalug Cheikh Mahamadul Fadil di màggalug mën nañu wax ndax sax humanité ndax dafa sa taxaw ci bis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf cee amoon taraanga joo xam ne am ci mbégte moo xam ne am ci wàccuwaay boo xam ne borom bi subhaanahu wa taala mësu koo defal kenn muy bis boo xam ne itam borom bi subhaanahu wa taala daf koo tudd ci alquranul karim jagleel ko sax aw saar muy suuratul israa mu doon kon bis boo xam ne xew-xew bu mag daf ci amoon ndax ci lay borom bi subhaanahu wa taala riñaane woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéege ko yéege ko ba mu àgg fa ko soob mu jegeel ko boppam jege goo xam ne kenn mës ta jege noonu yàlla subhaanahu wa taala ci bisu rajab bi jox ko fa taraanga joo xam ne itam dafiy des ba ba àddina tukki muy xeewal goo xam ne daf koo indil aw xeetam te mooy julli juróom julli juróom mooy keno bi gën a am solo ci lislaam ndax wax na ne mooy ponk bi nga xam ne moo téye mbaarum lislaam mënu ci ñàkk ci guddi gii la ko borom bi subhaanahu wa joxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wàcce ko ci aw xeetam mu ci yërmandeem itam mu woyefal ko ba mu doon juróomi julli Cheikh Mouhamadul Fadil daana ko leeral di ko taqale di ko jàngale ba ñëpp xam wax ne juróom fukk la woon waaye daf ko wàññi ba nga xam ne dafa doon juróomi julli juróom fukk yooyu tam manees na koo dugalaat ci biir juróomi julli yi ci ku coobarew muy naafi ay ay ay nawaafil waaye nag ku ko def ni nga ko wa war a defee sunu borom dana la jox yoolu juróom fukk yooyu mu joxe woon te da nga xam ne jëfe nga borom ndigalul borom bi subhaanahu wa taala te ku jëfe ndigalam rek la bëgg mu doon bis boo xam ne itam cheikhuna ahmadul xadim radiallahu anhu daf ko fonkoon ba bind ci ay xasaayid yu baree bari yoo xam ne daf ko tënkee yow mu rajab bokk na ci bi ci gën a siiw mooy bis bi nga xam ne yaa faadilan faddalahu alxallaaxu yaa man bihi faaraxanil imlaaxu nga xam ne dañoo wax ne bayit yooyu yow ma rajabin la ko sëriñ bi tënkee waaye noonu dañoo wax ne Cheikh Mahamadul Fadil la ko Cheikhul Xadim jagleel mën na caa wax rek wenn bayit boo xam ne yaa man bihi faaraxanil imlaaxu kooku sa mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy Cheikh Mahamadul Fadil ndax sëriñ bi nee na ko bi ma la amee amatuma lu ma mënta ñàkk bi kax taway naa maalahu nashtaaku salla alayka al akramul xallaaku nee na li nga xam ne moom lañ mébétoon nga xam ne dañ ko doon dañ ko doon woon siiwe dañ ko doon gëstu di ko yàkkaliku di ko seet fu ne ci yow lañ ko amee yow yow mu rajab te kon mooy yow Cheikh Mahamadul Fadel yàlla baaxe na ci nag moom jëmm ju tedd jooj yi mu wàcc ci bis boobu yi ñu di ko fàttaliku mu doon fàttaliku boo xam ne sant yàlla la waaye fàttaliku borom bi subhaanahu wa la fàttaliku ndigali borom bi subhanahu wa taala Cheikh Mahamadul Fadel ci jagleem itam mu àggaleel sëriñ bi jumaay Touba te ju te bisub rajab bi mu àddina ci la waxtu julli juróom wàccoon mu àggale jumaay Touba doon imaamu jumaay Touba di jiite jumaay ajjuma di julli waxtu yi juróom itam saa ko fekkee Touba mu koy julle ci ci ci jumaa ji wala mu nekk biir këram di ko fa di ko di ko di ko di kon ñu xam ne bis bi dafa dafa dafa méngoog moom ci wàll ci wàll yëpp sëriñ bi wax ne na kon bu ñëwee nañu fàttaliwaat wax ne bis boobu ñuy ñuy ñuy ñuy waajal di ko di ko teeru day bisub lislaam boo xam ne ñëpp ko bokk jullit yi ba ñëpp ko bokk bisub Cheikh Mahamadou Fadil di bis bu màggee noonu kon ñu xam ne bis bool boo xam ne nge ngëneel yu bari daf cee daje ak xewal yu baree bari ba tax na njabootam gi nga xam ne ñoom lay def loo liggéey bi bu jublusee ngir xam dayo boobu ak màggaay googu dañ ci def ay waxtaani diine bis ni ki tey incha allahu wala suba danañu tàmbali bis bu set danañ def ay jataay diine yoo xam ne dañ ci waxtaane ndigal di borom bi subhanahu wa taala ngir ñu mën koo jëfee di ci fàttali ay tereem ngir ñu mën koo moytu di ci fàttali njàng njàngalem Cheikh Mouhamadul Fadil di ci jàng alquranul karim di ko ci ñaanal di ñaan ci barkeem di ci jàng xasaayidu Cheikhul Xadim yi nga xam ne génnul tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak julli ci moom ak kañ ko bu bis ñu demee ba ne gannaaw suba la itam danañ am jataay bu mag bu ñuy def ci buntu kër Cheikh Mouhamadul Fadil nga xam ne seeti sëriñ bi ñoo koy ñoo koy ñoo koy ñoo koy taxawee at mu jot itam dañuy tànn benn tomb boo xam ne bu yitteel nit ñi lañu di ko waxtaane ren yàlla dogal ñu tànnoon xam eh, tolluwaay bi nga xam ne xam-xam am na ko ci wooteeb Cheikhul yàlla dogal Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ bi waxaat de wax ndigalam yu kawe yooyu mu wax wax ne dafa bëgg a liggéeyal sëriñ bi ci xam ñu bëgg kon bu waxtaanee solo si nga xam ne xam am na ko ci diine am ko ci yoonu murit taxawaay yi ci Cheikh Mouhamadul Fadil daan taxaw moom doonoon boroom xam-xam bu mag boo xam ne wàll yëpp lañ xam ci moom waaye googu wàll yi bëgg nañu gën ko cee leeral ba nit ñi gën koo xam doonoon bindkat bu mag doonoon ku fonkoon nit yàlla yi doonoon ku fonkoon boroom xam-xam yi daan soññi nit ñi ci jàng xam-xam daan leen dimbale taxawaloon ay daara yu baree bari yoo xam ne moo ko daan doxal ci jëmmi boppam la ca war lépp mu di ko ci def wut ay jàngalekat ñu nekk fa jëloon ay nit sax di leen yóbbu bitim réew ñuy jàngee ngir yokk xam li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne sàkku xam-xam jaar na dem ba Chine loolu Cheikh Mouhamadou Fadel du ko jëmmaloon bari na mbooloo moo xam ne tey ñi ngi ci réew mi doon ay boroomi xam-xam ñu di leen tudd ñuy jàngale ci université yi di jàngale diine di def ay liggéeyi xarañ yu nit di jariñoo Cheikh Mouhamadou Fadel moo leen yóbbuwoon bitim réew ñu jàng ñooñee na kon loolu bëgg nañ ko gën a waxtaane waale ci guddi googu yi bokk na ci itam ay taxawaay yu ñu def yoo xam ne jokk bokk doon ndax Cheikh Mouhamadou Fadel ku ne xam ne diggam ak bokk yi ku ne xam ne diggam ak ak lislaam ku ne xam ne diggam ak njabootu Cheikhul Khadim ci ndigalu sëñ Abdul Fatah moom itam ci ndigalu Cheikh Abdul Baraka mi nga xam ne moo moo moo ko moo ko jox moo teg liggéey bi ci loxoom mu jox nu ndigal ñuy def saa bu ñëwee ñu tànn ñenn ci bokki sëriñ bi dem fa def ay jataay waxtaane fa xam-xam waxtaane fa bokk fedd liwaat fa bokk suuxataat fa kolëre tànn ñenn itam ci kilifa yi nga xam ne ay mag lañuy àndoon ak sëriñ bi ñu demaat ci ñoom fedd liwaat kolëre dundalaat bokk googee leen ñu tànn ci sëriñ Ibrahima Bousso ak sëriñ Mbay Sàll conférence bu mag bi nga xam ne nag moom la def ci sët yi di ko taxawee muy jotaayu xam-xam bu mag boobu ñu tudd ko Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine ku nekk xamoon diggam ak Cheikh Mamadou Fadil ku nekk xam taxawaayam ci yoonu Cheikh Ahmadou am na jotaay bu ñu bëgg def itam xaaxira ci kër sëñ Mouhamadou Moustapha Falilou moom itam ku ne xam ne taxawaayam ci kër Cheikh Mamadou Fadil ku ne taxawaayam ci màggalu Kazu Rajab gi nga xam ne ba mu ko tàmbalee moo sëriñ bi naka jëkk ak Cheikh Mamadou Mourtada ak seenu njaboot ñoo ko daan taxaw kon sëriñ bi wax ndigal ne foofu itam nañ fa def ab jotaay boo xam ne dañ fay fedd di loolu bis bi nga xam ne moom la ñu ubbi nag moom dañ koy ubbee ndindi ndax ndindi mooy jat kër gi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Fadil njëkk a sanc ci turu Cheikh Mouhamadul ci turu ci ndigalul Cheikhul Khadim 1913 nga xam ne téeméeri at yi topp na Cheikh Abdoul Fatah mii nekk fa ak i rakkam nekkal fa sëriñ ñu bëgg a ubbee foofa màggal gi jotaay bu njëkk bi foofu lañ koy defee danañ dem itam Madina Mbooba nga xam ne mooy dëkkub Cheikh Abul Baraka moom Cheikh Mouhamadul Fadil naka jekk at mu jot dañ fay dem def fa waxtaan moom itam ci waajtaayu màggal bi daaru salaam gi nga xam ne nag sëriñ bi moo fa daan demal boppam nga xam ne moom wax nañ ne ca tàmbali ba daf daan def bu guddee mu dem fa seeti mbokkam ma wala réew wa Cheikh Mahamadul Maamoun nee nañ fa lay fanaan bu xëyee soog a ñëw jaar ko sëriñ Afiye mi nga xam ne moo moo moo moo mooy mbokkam ci Touba loolu itam sëriñ bi ci ndigalam jox nañu digal ñu dundal ko kon daal ci gàttal loolu la sëriñ boo xam ne nañ ko jottali li ci des Cheikh Ahmad Rifa yi moom itam dana wax ci turu sëriñ bi jottali cantam jottali jottali jottali li ci li ci des wasalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi noo ngi lay ziara euh, gouverneur noo ngi lay nuyu ak mbooleem ñi nga bokkal liggéey bi ci jottali kàddu yoo xam ne mi ngi bàyyeekoo ci si Abdou Fatah bi yàlla ko fi yàlla yàggal te wéral ko li sëriñ bi jot a wax nag wax moom mën naa yàgg waaye dégg am na fu muy yem dafa mel ne bés bi jar na mat naa jar na te mat naa waajal léeg-léeg mbir jar ko te du ko mat léeg-léeg mu mat ko te du ko jar waaye yaar yëpp suñu boroom dajale na ko ci bis bi nga xam ne moom la ñuy waajalal eh, Sëriñ Faliilu Mbakke ndax bu ñu ko seetloo xóotal ko mel na ne yaar daje na ci yaari mbir mel ni mbir mi mooy wàllu diine ñi nga xam ne diine rekk moom la ñuy xeñtu fu ñu ko dégg wutali fa lii sëriñ bi jëkk a jot li ëmbale na lépp ak geneen wet goo xam ne wàllu société lañu koy tudde sëñ Fallu mi nga xam ne moom la ñuy waajalal bisam e, ñaar yëpp la dajale woon di ko dund ba yaar yooyu ku ci féete woon yëgoon nga sa wàll wala sëñ Fallu sedd ci boppam mas naa taxaw fii ne moom mooy Sénégal Sénégal nag yaar yi nga xam ne moom lañ koy gën a xàmmee ba foo ko gis sam xel na yar na ci senegal ndax miin nga ko ci dégg mooy garab gi ñuy wax guy ak gaynde guy ku ne xam na ne lépp njariñ la ndax des na jël xàncam ya defar ci ay buum ñun ñu dëkk ci kaw gi xam nañ njariñam bu baax di ci yeewu sunub jur di ci root di ci yeew it kuñ ci bëgg a luñ ci bëgg a yeew luñ ci bëgg a yeew waxuma kuñ ci bëgg a yeew waaye ci bëgg a waaye guy itam wuyam wa boo ko tojee dañ ca fekk buy ku xam laaxu notari xam ngeen ne buy du ko wuute waaye kerem gi it ku ne ci àll bi liggéey mënu koo ñàkk ndax kàdd mi gën a am yaakaar ci ker ci àll bi moom du taseeg ab taw fenn bu koy gis rek daal di jëri waaye su boobaa nag guy mooy jël relais bi su jàmbaar nekkee ci waar yu ba sonn mu ne ko kaay dallu ci sama ker gi jógaat dellu ca waar wa daana fajal nit aw mar ndax nit toog na ba tey ndoxum toolam jeex xamul fi muy jëm xel na yar ci lëm mu na ci guy mu yéegloo ca ku sawar root ca def lam ca bëgg a def lépp ci ndox kon guy ku ko jël ne man Sénégal laa te Sénégal guy bokk ci njariñi kese nga société mun la ñàkk waaye gaynde it ñiy demal Sénégal ci feneen sax di xëccoo ji tur boobu lañ leen di wooyee gaynde ku ne xam na ngorom ndax xam na li tax yàlla bind ko xam na lim ko sedd gaynde du xiif mukk ba xelam dem ci fortaatu am ñax di ko lekk waaye day toog xaar yàlla rek ba lu yomb romb ko ndax man gis naa ko ku tayal la sa warewut noonu du dem di wuti waaye day toog di xaar yàlla ndax diisaay bee tax ni ko yàlla binde mu xam ko yëg ko te tiitarowu ko waaye day nag balu romb yomb romb ko rek mu dox nag na ñaadam ñaadam jàpp ko jariñu sa bàyyil ko fa ñeneen du ko du ko denc mukk jëmale bu gën ndax mënut a yéeg bay denc waaye su si jariñoo ba noppi xam na ne am am lañ wax saa soo amee lu la ëpp wàllu keneen na nga si mu bàyyil ko fa mm-hmm. ñeneen kon ku gore la koo xam ne du sonn ba tax ko wuti wutin woo xam ne gënal gënut waaye it du tooñ du tooñ kenn am na ko dëkk boori weti Kédougou nee na ma ku mu jëflanteel rek kookaa ko bëgg a jaar sàkk te moo yaay nag su ko defee kon ku jël màndargam guy laa ak gaynde laa wax dëgg yàlla société bi mënu la ñàkk ndax société bi mënut a ñàkk jàng saa su nekk ana nu ñuy jànge ngor nu ñuy jànge doylu nu ñuy jànge xam sa bopp waaye ni ñuy jànge jariñ nit ñi it te bàyyi leen ak lañu yor loolu bis bi làmboo ko kon sëriñ bi sëriñ Abdou Fatah mi ngi ci woo jullit yëpp ñu bokk ñëw taataanandoo ci njariñ yooyu nga xam ne moom la sëriñ bi ëmb ci biiram di woo mboolem jullit yëpp ak fu ñu mën a nekk ak waa réew mi ak fu ñu fi mën a nekk euh, bàyyiwut kenn bàyyiwut fenn bàyyiwut ñenn rawati ca nag ñi nga xam ne moom dañoo nekk ci biir réew mi te kenn ku ci nekk ni ko mbokk mi waxe léegi Sëriñ Fallu doon na dund ak ñaari nit ñaari xaaji nit benn xaaj bi njariñ lam leen amaloon taxoon na ñu yàgg koo ñaanal mu yàgg fi bañ mën koo fay ndax ay gor lañ gor day fay waaye beneen xaaj bi it ñoom euh, tooñu ma leen waaye dañ ne woon yàcc rek di ñaan mu yàgg fi ba yàgg leen a jariñ ñaar ñooñee nag seeni ñaan nangu na ndax suñ fallu jógu fi ñoom ñëpp nag ku ci nekk it am na njaboot kaar-kaar ba kenn ku ci nekk gëm na ni am na bor bu mu amee suñ fallu ni ko mbokk mee waxe léegi kon nag sëriñ bi nee na ku mas a jàpp ne séq nga sëñ fallu wala sa mbokk séq ak moom mu ngi lay ñaan nga jokk kóllëre googu wuy si ko ci bis bii nga xam ne dañ ci jàngat dunduk sëñ fallu gu barkeel waaye ñi nga xam ne it ñoom la fi e, monsieur le gouverneur toogal mi ngi koy ñaanit fu mu war a àgg mu àggale ko fa xamal leen ne it ñoom it njëriñul sëñ fallu mënu leen a teggi te mi ngi toog di xaar li koy xamal ku ñëw ak ku ñëwut daal mooy la muy séddale ma nga ma mu teg ne saa bu xoolee seen mu nekk fa mu xam ne diw ñëwagut bu xoolee mu nekk mu jóge fa nag mu xam ne diw fa mu ko tegoon la mu ko joxoon jël na ko ba dem waaye dana dana jafe ci moom loolu nag ku ñëwut mu di la yóbbante naan joxal ma kee ndax euh, cërub xejj xoj da koo jël saa su nekk mi ngi leen di waalo yit Euh, màggalu doomam ju baax jooju El Hadj Baara moom itam yàlla boole leen mbir euh, moom it dugg na ci biir loolu ndax diir bi mu fi nekk lim gàtt gàtt euh, lim fi jariñ ci aw nit kenn xamul ni mu toll te néew na ku ne maa ko defal nangam lu mu mëntoon a am sëñ bi di dellu di ñaan ñii ñëw ñëpp yàlla leen yàlla indi ci jàmm delloo leen ci jàmm. Euh, code boobu ñuy wax naan code suñu fallu ku ñuy wax suñu aafe mbay moom la ko suñu fallu waxoon euh, ba mu amee li ñuy wax brevet moo jiitu permis de conduire daa ñëw wan ko ko ne ko ñi ma doon euh, gëstu ba xam man na maa dawalam de dañoo ma ko jox mu ne ko ma seet mu jox ko ko mu xool lañ ci bind lépp ne ko waaw yow de jàmbaar nga ndax wóolu nañ la waaye xaaral ma dolli la loo xam ne xëy na bëggoon nañ la ko wax te mënuñ la ko wax ñi dama ñi ma la koy wax ne ko sooy dawal wata da nga naan du duju toogaay bu dëgër ne nikk jàkk ne nikk ak say loxo say yoxo loxo mooy benn waaye yoxo mooy ñaar ne jàkk fi nga jëm eh, bu ne taj nga ne tekk bu ne yang nga ne yow boo ne yow ba jub ab lunk-lunk mooy ab virage nga tegg sa tànk te màcc ci sa wetu ndeyjoor boo ko génnee ba mu jeex takk mën ngaa dellu ca la nga nekkoon ku la ne piip ci ginnaaw maag yow ko man nee ko yow bàyyi ko mu jàll <laughs> am ñu wax ne daw ndànk dal ndànk waaye kuy daw ndànk du dal ci kaw dara yàlla yàlla indi ñëpp ci jàmm delloo leen ci jàmm bis bi nag nit ñi ñoo ko gën a yàkkamti ñi nga xam ne ñoo koy taxawe ndax bu gàmm jàllee xew wi jëkk amat ci Touba te mu doon xew wuy jugloo ñëpp mooy Kazu Rajab bu ñuy gàmm rek tàmbali lañ kañ la Kazu Rajab moom daal xam naa li ci ne sax waaye ñu bari it xam nañ la ci nekk daa mel daal dañ ko yàkkalewu faw ñu xam ne it euh, bis biñ ko jàpp da ciy baax ndax kuy wàcc xam bis booy dem fukki fan ak ñett ci weeru avril bii di ñëw la ko jàpp yàlla nañu ko yàlla fekkeloo te romb ko te daje ceeg ngërëmul sëriñ bi te kenn ku ci nekk bu ñëwee ba dellu it xam ne ñëwoon na Kazu Rajab kàddu yooyu daal la sëriñ bi waxoon ma jottali ko lottu naa ci nag waaye ndigal moom soo mënee defal soo mënul jëf jéemal a jëf rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu di santaat également euh, rakkam yi ma àndal ñun moom suñu suñu màggal commencé na pare ah li ñu dégg tey moom ñun door nañ màggal bi ah waaw macha allah leen gërëm bu baax a baax di gërëm suñu Ahmadou Bardawi di gërëm suñu Ahmadou Rafiw nuyu sëñ Galas nuyu sëñ Xaadim nuyu mbokk yi fi teew yëpp taalibe yi fi teew yëpp di leen gërëmaat encore rek si réunion bi ngay ànd ak ñun macha allah yaakaar naa réunion yi ñu fi def yëpp rafet nañ mais bu tey bi gën rafet encore macha allah si wàll yëpp ni ñu ko waxee rek Kazu Rajab la dafa exceptionnel moo réunion bi ñu def tey tamit exceptionnel la waaw euh, ñu ngi wax ne dégg nañu bu baax seen i demande si si si màggal gi li ngeen di xaar si administration dégg nañ ko ni ma ko waxoon si si ñuy door mooy engagé wu nañu euh, lépp lu ngeen fi wax ñu def seen kënt laay kàttan ñu si mën a wax mun dinañ ko wax léegi euh, luñ si waxtaan dinañ jéem a def tout pour mun ko lu luñ si war a jottali suñuy kilifa tam dinañ ko jottali luñ si war a lijjanti ak beneen service Dakar tamit dinañ ko lijjanti ak Dakar ak beneen service service bi mu concerné di leen waxaat rek ne que suñuy kilifa tamit lu ñu digal la euh, ne nañ si jàpp bu baax et ñu koy suivre seen bopp xool fan lañ toll si préparatif yi kon nag léegi dégg nañ leen wax si wàllu sécurité bi si wàllu santé si wàllu hygiène si wàllu hydraulique si wàllu Sénélec si wàllu assainissement li ngeen soxla si logistique tamit ak taxawaay bu ngeen eaux et forêt bu ngeen mu taxaw si ak Sonatel lépp déglu nañ dégg nañ ko incha allah noté nañ ko. si gën am importance tamit euh, jote nañ ko li ngeen si xaar yu yees tamit noté nañ ko ni ñu leen waxee woon li ngeen si defoon daaw dañ ko dellowaat li xam ne yees na si tamit dañ taxaw ren pour mën ko matal si wàllu sécurité di gën bu baax li ngeen si wax yëpp si béréb yi si suutee yëpp si si rapport bi ne war nañ fa def sécurité wala yokk fa sécurité amoon na fa daaw sax dinañ ko def incha allah dinañ ko yokk mooy si wàllu mausolée yi si wàllu béréb yi xam ne ñoo jëm si Alieu wala ñoo jëm Ndindi wala ñoo jëm euh, si bërëbu euh, kër sëñ résidence bi résidence sëñ fàllu yëpp dinañ leen toppaat ba xam ne sécurité bi si yëm nañ ko def sa bërëb ba sabab ñu def fa tamit ay gendarme wala policier ku nekk li mu laaj pour mën a am sécurité bi wala ay sapeur pompier nombre ba mu laaj ñu def ko si pour mën a am sécurité mais li si gën a yees na mooy que plan de circulation bi ñu defoon si màggal gu mag gi grand màggal gi plan de circulation ko tegaat dañ ko tegaat parce que préparation lay doon sax pour ñun test lay doon pour ñun ndax plan boobu dina mën a fonctionner bu baax si grand magal bi te si Kazu Rajab bi lañ ko mën a testé donc sant yàlla vraiment bi ñu amee Kazu Rajab bi si wàllu santé tamit dinañ ko dinañ ko laajee rek treize post santé yi dinañ ko doxal incha allah ñetti ambulance yi également dinañ indi médicaments yi ngeen xalaat ñaan tamit dinañ ko indi incha allah dinañ leen joxal dotation médicament euh, di li ngeen doon laaj tamit si gratuité incha allah dinañ ko jottali ministère la santé pour que ñu mën a def gratuité mun naa ñaar wala ñetti fan vraiment si li war màggal gi ah ak bu su màggal gi ñu mën si def gratuité incha allah bu ñu jógee nañ ko jottali ministre de la santé lu ñu si wax rek si ay directive dinañ ko def su wàllu hygiène tamit gërëm bara war maire bi si taxawaayam ne at yi yëpp wax dëgg yàlla amuñu produit et chaque anne maire bi mooy gën a produit donc ko si remercier bu baax li si sëriñ bi indi tamit si wàllu carburant bi ñu ngi ko si remercier bu baax incha allah donc dinañ ko jël dinañ def tout pour mën a tere commencer traitement bi vraiment ni ñu ko wayee sëriñ bi dañ ko def au moins le premier dimanche premier jàpp lundi ah ñu commencé ko mën a def traitement boobu balaa ñuy yegg si euh, si bés bi si wàllu woowu tamit laa jàllaale rek si assainissement ONAS tamit il faut que seen activité ñu mun ko def au moins peut-être deux trois jours avant màggal gi parce que bu ñu demee ba nit ñi commencé ñëw di nekk si dose bi dalukaay yi nga nekkaat si seen biir di traité dootul yomb donc cinq fan yi ñu leen wax ngeen def ko na nekk cinq fan ngeen jiital au moins trois jours wala quatre jours avant ñu pare boo xam ne gan yi bu ñëwee dañuy dugg bu ñu paree tamit ni ko doon waxee tamit yokkaat si quelques jours parce que force yi dañuy feesaat ñu yokkaat si ay bés pour mën a effectivement seetaalawaatal force force yooyu ñu xam ne feesoon na li ngeen wax si wàllu donc. Euh, brigade du GMS sax jàppale nañ ko hein ñun chaque fois effectivement lu ñuy demandé la espérons que dinañ ko mos a am daaw ànd naa faak ministre de la santé mu xool brigade bi fi mu nekkee moom su boobu xam na ne lu koy gën a adéquat mais dinañ continuer liggéey wàllu état la nag planification lay laaj liggéey pour que vraiment ñu mën a tabaxal Touba brigade de jeunes dina tax sax si jamonoy màggal jafe na ñuy am jafe-jafe yi ñuy am pour accueillir renfort yi ñu mun leen a régler donc loolu solution la peut-être à moyen long ñu ngi si jublu incha si wàllu hydraulique xam naa ne nag bâche yi ñu fi bàyyi loon moom ñu bàyyiwaat ko fi moo gënoon bâche camion yi ñu fi amoon franchement ñu bàyyil ñu ko fi moo gënoon parce que doon nañu dimbali bu baax si wàllu màggal yi mais nag bon nañ jàpp rek dinañ amaat xëy na 15 camions yi ñu wax cinq yi moom mu ngi fi dañ ko jottali waa waa OFOR euh, pour ñu indilaat ñu camion moom mat 10 15 voilà également bâche souple yi tamit ñu indil ñu 10 bâche ni nga ko waxee jeex na démb yaakaar naa ne donc jot 15 bâche suuf yooyu dina war a mën a nekk réseau bi nag li si wàllu paan tamit ñu taxaw pour que surtout forage Kër Ñang bi pare pare forage bu xatul Mubarak bi tamit ñu taxaw si mu pare pour que ñu am ndox si réseau bi yëpp également pas de fuite yi tamit ngeen toppatoo ko comme ni ñuy wax find fuite bi ñu leen di wax noonu si wàllu Medina boobu je pense sëñ ah? waaw Medina Mbogo voilà ah Medina Mbogo fuite boobu ñu toppatoo ko tamit pour que ñu mën a am vraiment Euh, approvisionnement bu normal xanaa ne buñ fexee ba fuite yi amuñ buñ fexee ba forage yëpp nekk en en marche xam naa ne ah. Touba Ndindi voilà Touba Ndindi. Touba Ndindi voilà Touba Ndigal mu ngoog voilà Touba Ndigal Touba Ndigal donc euh, régler problème mu conducteur bi nee nga ma nañ ko mais également ñu régler fuite yi hmm? incha wàllu Sénélec donc euh, ñu ngi laaj lëkkaloo bi diggante ñoom ak maire yi si entretien bi waaw waaw si li xam ne réseau bi existé wu na pare mais li laaj tamit extension wala laaj taxawaay yu bees ngeen taxaw si waaw li ñu laajoon tamit si branchement provisoire ngeen def ko jàpp ne site dañoo bëri bi yoon ah du rek euh, kër euh, sëñ Fallou bi rek mais ndindi si la bokk Aliou si la bokk ak yeneen béréb yi xam ne dañ fay màggal ñu mën a yóbbu foofu yëpp ay branchement provisoire mais également jox leen lanterne yi xam tamit euh, ni ñu ko ni ngeen si engage wu. kon li ñu doon wax si wàllu laissez-passer yi rek léegi incha allah ñu ànd ko def ak waa police euh, commissaire signé si comme ça mu leer euh, que laissez-passer yëpp lu normal la également donc ñu veiller à ce que ñu mun ko appliquer. parce que mesure boobu bu ñu ko appliqué tam dina facilité bu baax circulation bi léegi nag yéenay natt tamit ba xam vraiment kilifa yi ko war a am yëpp ñu mun leen a listé ñoom ñu ku nekk ñu mun la jox waaw li ngeen wax tamit si wàllu chaise yeeg bâche yi dinañ ko jotali ministre de l' intérieur ak ministre de direction matériel ñu ministre du budget dinañ leen ko wax incha allah comme yéen pare ngeen ko jëli jëli leen yaakaar naa ne dina gën a yomb incha allah si wàllu Sonatel tamit ñu ngi si taxaw effectivement ni ñu koy waxee màggal gu nekk léegi moom dañ koy laaj mun ko yóbbu fu nekk donc si ngeen laaj si euh, ligne euh, AS euh, ADSL ligne LS je pense que Sonatel engagé wu na si dina yokk sa compa capacité je pense ñu ADSL bi jëlee ko jëlee 2 méga yóbbu ko 10 je pense que lu am importance la ñu ngi si xaar tamit vraiment ngeen appliquer mesures yooyu comme eaux et forêts également ñu ngi leen di xaar si ñu joxe permis yi. parce que def nañ demande yi pare jottali ko ñu def permis yi mais joxe leen à pour ñu mën a di matt mi avant avant avant avant bés bi ah mu def donc ñu jot ko à temps balaa bés bi parce que léeg-léeg yaakaar naa am na at yoo xam ne dinañ dem ba bés bi passé te nit ñi duñu mën a jot si matt gi xam ne moom lañ leen am autorisation voilà donc danañ si taxaw ñu teel a jot euh, euh, laissez-passer yi donc noonu la tamit douane dinañ def facilité yi ñu doon def comme toujours rek na bu amee jafe-jafe ñu jokkoo rek ah ñu jokkoo ah donc vraiment léeg-léeg tamit agent mooy toog fële rek def lu ko neex te fekk ne jox nañ ko ay kii bu fekkee jot nañ si nañ ko mën a xoolal ay kilifaam ba mun koo décanté développé noonu si wàllu commerce tamit euh, des facilité ma def contrôle tamit pour que kenn du ji uti jël profité si màggal gi pour indi fa yoo xam ne produit yoo xam ne mënoo ko jaay baaxul waaw donc dañ veiller si loolu mais également li ñu war a def si facilité tamit pour que marché bi am produit yi ñu mun ko topp noonu si élevage incha allah dinañ def euh, opération boobu euh, lutte contre les chain errants dinañ ko def luñ daan fasal faral di def la surtout bu nekkee màggal goo xam ne du si biir euh, du si biir koor du si biir nawet donc dinañ ko topp ba mën a def benn opération avant nawet bi inspecteur inspecteur élevage bi nee na ma am nañ produit bi nañ lëkkaloog mairie bi pour am appareil ak euh, carburant bi incha allah donc. Euh,